grève suba du ñu grève suba. loolu gënul leer dama ni yow man su may da ngay déglu sama début wax. yow dafa mel ne yaa ngi toog jàkkaarloog man mais la personnel bi am na ñu ci am contrat am na ñu ci amul contrat. waay ñoom man la ñaata ñaata la ñu xam loolu mënu ma la ko wax. mais da ngay dégg non non déglul ma expliqué la sëñ bi. damaa wax ba pare yow li may wax dafa mel ne dégguloo ko baal ma expliqué waat la pour mu gën a leer xam naa baax li nga wax. non non dafa dafa dànk. allez-y euh, Kébé allez-y uh-huh. ñoom dañoo dépo pré dañoo déposé préavis de grève bi ñu ko déposé ne ñoom contrat la ñu soxla ak yokku salaire président af yi toog ak ñoom ne leen contrat loolu yoon moo ko wax parce que nit ki booy liggéey ak moom da ngaa war a am contrat. Uh-huh. contrat boobu dem leen ngeen recenser ñi amul contrat ñu ñëw par force euh, opérateur yi dañ koy def. léegi ñoom ñoo war recenser ñu amul contrat. non defal ndànk waaw defal ndànk defal ndànk. mais mais mais euh, aussi kebe foog nga xam ni que daf lay renoncer des fois. waaw non d'accord mais c'est une question est que ñoom ñoo war a doon relancer ñi amul. man dama expliquer moom. comprendre li ma ko expliquer. non mais mais non mais mais. il a le droit de vous relancer quand même. waaw relancer aussi. li ñu wax nga ni comprendre ko léegi fii comme que comprendre lul dara. allez-y non waay bu bu comprendre. Ah, mais bon mais comprendre naa am naa xel fu déglu lu ngay wax. ah sëñ bi d'accord man man comprendre naa la parce que jikko journaliste bi war. amul problème non non man kii. non non non defal naa ci defal naa ko demee expliquer la. ñoom dañu ñëw ne contrat lañ bëgg contrat yooyu ñun leen dinañ leen ko defal parce que c'est obligatoire loolu yoon moo ko wax ne képp kuy liggéey ak nit li leen waral a mooy contrat. oui comprendre nga oui léegi ñu ni wàllu yokk salaire ñu leen yokk salaire ku ci nekk am nga opérateur boo xam si moom moo la jël di la liggéeyloo. Mhm. demal nga toog nga waxtaan ceeg moom. loolu xanaa li ñu wax ayut te yoon yoon maye na ko yow bu fekkee da nga ni yow lan moo tax ñoom ñu leen di buntikee ñu leen contrat ngi nii ku mën na liggéey ku mën na bàyyi. mais peut-être ñun bi ñuy démarrer am na ñoo xam ne si demaare nañ ci contrat de des fois da ngay gis ab usine wala entreprise wala dara am na ñoo xam ne jour journalier lañ fay def dañuy wàcc ñoom ñu fay leen dem seen yoon. am na ñoo xam ne mais ci fay boobu laa bëgg a ñëw sax non dafa tànk. Mhm. dafa tànk bu ma expliqué ba pare am na ñoo xam ne dañoo am contrat dafa liggéey weer bu dee ñu yëkkati fay leen am na ci ñoo xam ne si tey journalier dañuy liggéey wàcc ñu yëkkati sa xaalis jox la nga dem